boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo la laa ngeen jëf jërë ngeen jëfati mbokk yi jàkkaarloo ñu ci dañu seetaan ñoo ngi amati mbégte kontaante di ñaanal xalif général kulu murid Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi lool ci ànd ak wér ak mbooleem njaboot ak Cheikhul Khadim gépp waaye noonu lañ ko ñaanalee xalif général kulu Baye Fall di Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbenda di ñaan yàlla yàlla kattanal ko tawféexal ko mbokk yi nag tey jii xam ngeen ne tey la ajuma ajuma tey jii nag. kenn ku nekk xam na ni euh, ndigal jóge woon ci xalif général kulu murit Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla fi yàgg lool ci ànd ak wér wàccoon ci ki nga xamante ni moom mooy jëmmi Cheikh yi tey di Serigne Amdi Modou Mbenda ngir euh, fii nga xamante ni mooy euh, gaar bi ca kenn ku nekk xam ni amoon na ab marché boo xamante ni yàgg nañ koo joytu mbokk yi fi dëkkee ñoom ñëpp kenn ku ci nekk yàgg na cee wax kenn ku ci nekk amoon na taxawaay boo xamante ni gis nañ ko muy di saytu li nga xamante moo fi am. waaye itam naka noonu jafe-jafe yoo xamante ni nemeeku nañ kenn ku ci nekk gisoon ni jamono yoo xamante ni bii euh, band yi ñu ngi fii di yàq li nga xamante ni mooy dëkk bi di kar nit ñi di def ay agression yoo xamante ni yu yéeme la waaye itam naka noonu itam bi ñu ko yàggee joytu tey jii nag di fa rey ay nit ba kiñ ci mujj rey fan yi rek yaakaar naa ni su ngeen gisee taxawaay bi nga xamante ni euh, mbokki taalibe am nañ ko gis yi nga xamante ni population bi dëkkee gaar bu mag am nañ ko moo tax nga xam ni euh, tey jii am na ab liggéey bu am solo boo xamante ni bii ñoo ngi ko fiy def ndax bâtiment yi ngeen gis noonu yi ci bëri bëri tàmbalee ñu koo daaneel waaye nag ñu ne nañ xàll fii ba mu leer nañ ñi ba nga xamante ni bii dootu am làquwaay woo xamante ni way euh, defkatu ñaawteef dafay làqatu waaye tam ñu gis mobilisation bi nga xamante ni tey jii euh, mbooleen Baye Fall yi def nañ ko waaye tam mbooleen euh, ñi nga xam ne waa Touba kanam def nañ ko indi seen i matuwaay appui yi ñi nga xam ne ñoo di Baye ci liggéey bi doon benn liggéey waaye tam gis nañ tam ñi nga xam ni ñooy sécurité bi mooy police taxawaay bu am solo bi nga xamante ni def nañ ko ci liggéey bi am solo bi nekk tey yi ñoom tamit ngir encadrer euh, ñi nga xam ni ñoo ñëw ngir liggéey ak ñi nga xamante ni ñoo ñëw ngir jëfi ndigalal sëriñ bi ba nga xamante ni tey euh, kenn ku ci nekk am na taxawaay boo xamante ni moom nga ci war a am waaye tam naka noonu tam ñi nga xam ne ñooy boroom kër yi ñoom tamit seen liggéey bi nga xam ne am nañ ko def nañ fi ay bâtiment investir nañ fi investissement boo xamante ni bu fasantikoo la lépp nag yàlla dogal na biñ ko defee pare nag tey jii ñu ngi ñuy ñëw noonu ñu ngi koy toj di ko daaneel waaye itam li am solo mooy dañuy gën a firndeel ni dëkk bi dëkku seexul xaddim la ndigal itam ndigal seexul xaddim la ba tax tey jii ñoom ñëpp nangu nañ ko àndandoo tey ñu ñëw ñu ngi koy toj ci li nga xamante ni mooy tawfeex ak taysiir juwee bu péng waaye itam lii soo gisee xam ni feneen fu mu amoon fu dut ci yoonu mën rek mën nga fee dégg coow waaye tey ji xam nañ dëkk bi dëkku sëriñ Touba la lim ko sance woon muy jàng ak jàngale ak jaamu yàlla rek moo fi war a nekk waaye wut a nekk dëkk boo xamante ni bii dëkkub euh, làquwaay la ci koo xamante ni bii ay defkatu teef nga moo tax kon nag gis nañ mbooloo macha allah fasantikoo nañ lool seen Istikhama TV àndante ak Xibaar Vision ñu fas yéene lépp lu fi ruus rek ñu ma leen koo jot incha allah ba ca kanam ñu gis toj bi gis tam euh, ni nga xam ne noonu la defaree liggéey bi ba lépp sont jaar aw yoon ba ca kanam incha allah. fa la ilaha illallah la ilaha illallah fa la ilaha liggéey bi nga gisee tàmbali bi liggéey bi ak fi mu toll. asbillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barke Cheikh Ibrahima Fall waaw ndigal day moom Baye Fall ndigal moo di dundam ndigal mooy màdde aw yaramam ndigal moom ci feebar ndigal faj ndigal mi ngi ci kër Baye Fall mi ngi mel ni gileem gu dellu gànnaar motu fa ak njuuma nun ndigal rek la ñuy déglu fi mu lii nga gis nii kenn ku nekk ci nun bu dégganteen kàttanam maa doon ko sax sa borom bu fi ñëw lépp dinañ ko dinañ ko jëfee nekkewul fi lenn lu dul déglu ndigalal sëriñ bi ndax bu njëkk natt bu njëkk baa njëkk bañ koy def te xëy sëñ Cheikh Mbacke moo koy def Daaru Xuddoos sëñ Cheikh Fall Baye góor jiite ko dimanche dañ xëyee tàmbali ko ñeeg soxna Fatma Thioub bi nga xëy moom lañ njëkk njëkk a yëkkati man mii wax ak yéen maa ci njëkk a gor jaay si déeg maa laawi perma ak léegi a ah, yaakaar naa ne ay fan la kon lii jaaxalul te loolaat moo gën a metti fop natt booba fa mu yemoon fi ko suñ sa bàkkee woon boobu ba léegi natt bu ni mel amaatul lii nag day loo xam ni bañ ko dalee bëgg yàgg na waaye amuñu ci ndigal tey nag looñ ci door a am ndigal sëriñ bi santaane ko pour ñu leeral ko ndax Touba dafa baaxawul ay borom yi ñaawteef fépp fu ñuy làqut rek bu buñ ko xamee buñ ci jotee ndigal foofu daanu ko leeral bu soobee yàlla fii buñ ci bëgg buñ fa jógee dana mel ni dañ ko yorug bale bale ko ba mu set loolu rek la lañ ci soxla soo la wuñ ci leneen ak leneen leneen luñ ñu joxaat fee nit ñu def ko noonu jërëjeen jëf liggéey bi nag noo ko tàmbalee fii ci raay bi rek ba ba fa ko sëriñ bi yemale ndax sëriñ Cheikh Ndigal Fall li nga xay moom la ñu digal mooy fañ leen la yoon na ngeen fa tàmbaliloo tàmbalee fañ leen looy it na ngeen fa yem luñ weesu it nag na set loolu lañ ñu santoon tey noo ngi ci bu soobee yàlla fas nañ yéene dégg maa ni ko sëñ bëggee lépp ñu defe noonu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 la ilaha illallah la ilaha illallah faal sallallahu nabi mbokk internet yi ñoo ngi leen di siyaare baax a baax di leen baalu àq ku ñu gis fii ñu taxaw ci gaar bi xam ni Serigne Touba joxeeti na ndigal mu ndigal loo xamante ni yàgg nañ ko koo jëfal ñëwaat fi teew di ko jëfal yàlla nañu yàlla may ñu koy teewee. ay ndigal yu baree baree baree baree bare ci barki sëñ Tuubaa Séex Ibra ndigal nag du ndaw naka sëñ Tuubaa digle rek ku ne xam na ne liggéey bi euh, liggéeyub jom la liggéeyub fit la liggéeyub doole la waaye loolu yëpp sëñ Tuubaa moo ko moom te tey delloo nañ ko ko waaw di leen siyaare baax mbokk taalibe waaw comme ndigal yi ni mu doon ñëwee ni da ko noon noonu lañ ko waajale rek ndigal yi fi daa ñëw euh, ñenn ñi fanaan fi ñenn ñi defar ndékki yi ñenn ñi wuti matériel yi comme ndigal yi fi daa ñëw rek ndax miin na ndigal daal ndax Baye Fall miin na ndigal moom yaakaar naa yoon wi yëpp xam nañ ko ci xam nañ ni Baye Fall ñu miin ndigal lañ wax dëgg yàlla.

Euh, ñëwoon fii ci liggéeyu Baye Fall yi euh, bi nga xam ne sëñ Mountakha Mbacké moo leen ko jox wax dëgg yàlla ñu leen di sant di leen gërëm comme ñu ko waxee rek wax dëgg yàlla ñun ay taalibe lañ ay murit lan te amul lenn lu ñuy jëfee lu dul ndigal ndax dëgg yàlla lii sedd na suñu xol sax lañuy wax wax dëgg yàlla waa koñ bi ñëpp ñu xëy suba ànd ñëw jàpp ci liggéey bi comme ni ko sëñ bi bëggee rek waaw loolu moom moo doonoon suñuy kàddu. lan moo tax ngeen taxaw nag pour ñu jëlee fi dëkkoon ndax na. waaw fii ñun ndaw ñi fi dëkkoon ñoo dajaloo def benn taxawul benn collectif pour maanaam jëlee fi ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci gaar bu mag bi di def ay naka su dul noonu dëkk bu mel ne dëkku Sëñ Tuubaa bi dafa mérité wut ñu fay def yu mel noonu moo waral ñu dajaloo def benn collectif taxaw ne maanaam dinañoo xëy suba pour sàkku lu mel ni jóge fi ndax fii ak jumaa ji 0 kon mënuñu fee ñëw di fi def xeetu ñaawteef yoo xam ne ci dëkk bu mel ne Touba loolu bokkoon na ci lu doon suñ première gërëm ñëpp comme daal satisfaction moom wax dëgg yàlla am nañ ko ñun ñu dëkkee ci gaaru wax dëgg yàlla suñu xol seet liñ doon ñaan lépp suñ bi nangul nag waaw ba niñ ko bëggee amee nag jëfe sëriñ Mountakha Mbacké ñoo ngi koy sant biir ak bitti di ko amel ngërëm loo xam ni amutug fay amutug yamukaay ndax fii kat sonnoon nañ torop mënuñu woon a génn jëm fenn suñuy doom mënuñu woon a génn jëm fenn gone goo yónni du dem mag moo yónni du dem ndax daal fii daal sonnoon nañ sonnoon nañ ñun daal duñ def loolu sant sañ mun taxaa te di ko ñaanal mu yàgg fi te wér loolu rek lañ koy ñaanal. kontaan ci rek nag kontaan ak bëkki lool nag. kontaan ceeg bëgg ci dongal nag la barke sëriñ Touba yal na jëm ca kanam yal na yokk ku ko xaar ku ne yal na xaar sëñ Mountakha yal na fi yàgg te wér jërëjëf. bu nekk dafa ñu toll nag te mooy suñu kilifa mooy suñu lépp nag lépp lu mu bëgg suñu jëm yi su soxla woon dañuy dem kon nag Ousmane nag ay place kon sant nañ ko bu baax gërëm di ko ñaan yàlla yàggal yàggal ko fi xanaa toog di ko diglu rek comme ñu jébee tam ñu daa fay dem incha allah mm. ñu moom lañu moom lañu diglu moom suñu kilifa moom suñu lépp suñu jaagal cee ëllëg waaw li ñuy wax ci ñun toll ndax xëru ñuy benn yoon kontaan nañ ci lool mbégte sax lañ ci àndal waaw waaye nag sant yàlla daal lan nga fi doon jaay man bagage cosmétique laa doon jaay produit ay ñoom maam Thierno yi ay ay kii doon jaay ay commerçant lañu doon jaay bagage yi kii yi maanaam lu ñu si naqari wax dëgg yàlla ndax ndigal moom jëfe Cheikh Modou Fallou Fall yaa mat boroom laa ilaaha illallaah Cheikh Modou Fallou Fall yaa mat boroom mat boroom Fall doy boroom Cheikh Modou Fallou Fall yaa nu ginde mat boroom Fall doy boroom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 lii mbég dëkk laa ci àndal ndax man euh, lu ne ñu koy wax waaye man li nga xam ne moom laa wax doon ko wax naka jekk sama kàddu démb doon sama kàddu tey bu ñuy tëj nañu jëkke ci man bu ñu ñëwee lu ñu fekk ma roñ ko ci samay bagage ñëpp xam ne roñ naa ko lu ma ci roñu lépp def naa ko addee Sëñ man noonu laa doxee ndax seen maam naar moom xam nga ko ndax man taalibe Baay Faal la yaakaar naa ndigal bu mu jël man maa ci war a jiitu ci ndigalal Baay Faal kon lii mbégte laa ko def maa ngi sant yàlla di sant maam Seera Faal boo gisee itam lu ne ñu koy wax ci Seer man ndigal rek moo dem naa ci dem naa ci kilifa yi dem naa ci Serigne Bass du ndax euh, li ci li ci sëñ sëñ Muntaxa wax ci yu baax yooyu yëpp ba ci sëñ Muntaxa li mu ci wax mooy mooy samay tànk mooy samay mooy samay nopp mooy samay bopp ba ndigal li jógee ñu dem euh, waa marché bi mobilisé daan ne Cheikh Fall Nar daanaka marché bépp moom moo ci ëppale comme que moo ci ëppale nag nañ ko jiital ndax buñ ko jiitalu buñ demee di wax ñun mën nañ ñoo bañ a déglu ndax liñ fi daanaka du dara ñu wax ma ko man leen man du ma dem ndax man digal lay wéyee te ku ma xam-xam ma ci digal ku nag ku ma xamit xam ne man du ma kantu léegi nag man du ma dem ñu ne ma il faut nga dem ndax yow euh, marché Ocass bi yow yaay ci ëppale te yow yaay suñu ndóor laay yaay suñu jiit yaay yaay yaay suñu jëwriñ ci liggéey bi ndax ñun ay liggéey kat lañ kon yow da ngay liggéey di joxe addiya ñuy liggéey di joxe addiya man leen man de bu ma sañoon doo dem ñu ne ma nañ dem ba ma demee ci sëñ Bass fekk naa fa ay ay nit ay mbooloo ay mbooloo yu euh, sal ñu toog toogee ba ma ñëwee nuyoog sëñ Bass nekkuma fa di ko wax lenn dama ko ne sëriñ mu ne ah ma ne ko man de damaa rusoon sax ñëw fii ak si yow ndax yàgg naa laa dégg waaye yaakaar naa sa kër gi dina fa teg sa tànk bëri te heure bu digal jógee sa taalibe yi nga am yëpp seen xel day dem ci seen xalaat ñu ñëw ma di leen jox ay bagages yoo xam ne dañuy sa ndigal te ñëwuma fi di la wax ne la man maay soxal naa ndax dama damay taalibi damaa war a liggéeyal sëñ waaye nag ñii dañuy sooy bopp taalibi te ndigal nag daa jógee foo xam ni a ah, ñoom dañ ma cee yaakaar ma ànd ak yow gis nañ ni man la ma faam ñoom man man man maa leen jëppale te buñ jógee di dox te man jóguma day mel ne ñoom maanaam ah, dama dañ ma fi bàyyi wala dara wala ñoom la ñuy dox du sotti ma ne ko bu ma seeyam sama tànk bi ma ko fi teg ndax man mbir na ma ni ndigalal suñ ko Seera Fall mooy ndigalal Sëriñ Touba ndigalal maam Seera Fall mooy ndigalal Sëriñ Touba ndax Sëriñ Touba Sëriñ Touba maam Seera Fall du ko jox benn liggéey la mu ko digal mu di ca mu di ca arrière dara wala mu di ca yokk dara mbaa mu di ca wàññi dara te man ku ma sañoon de mën naa ma ko sama loolu ci la ñuy jëkkee ma am nag toll na ci 400 millions ndax 200 millions laa ko waxoon ndax booba dafa amoon yenn yoo xam ne sax jortoon naa ni ñoom buñ ci àgg waaye nag booba itam taxul ma ma jortu ni sax yooyu dana ci àgg waaye jortoon naa ni sax dana ci àgg ndax nee naa leen mbir mi moom dafa tàmbali te seerafaal dong moo xam suñu yem te digal la loo ko digal fa mu yem ak fa mu tàmbalee di ci yokk mètre di ci wàññi mètre man loolu xam naa xam naa bàyyi fi léegi nag man li nga xam ne moo ci sama sama xalaat mooy damay jégalu ñëw bi lii lu ma am bégte laa maa ngi nii damaa takk sama der takk sama lafasaay ànd ci liggéey bi maa ngi nii sama kër sama bagage yi ñu ñu ñu ñu ñu jëkkee loolu damaa neex ndax ba ñu wootee tey sama étage bi ma bi ma mujj a tabax ca laa jëkkee ni leen digal li kenn du ma ci jiw xaaral ma jëkk ci ba ñu gis ni maa jëkk a tàmbali sama kër ña nga fa ak sama yeneen bagage yëpp waaye gisuñu ma fa may toppale matelas wala may toppale euh, ànd ba may toppale palaat wala may toppale weñ ndax digal li sëñ Touba moo ma moo ma ëppal doole lépp sëñ Muntaxa digalul sëñ Muntaxa li moo ma gënal lépp moo ma gënal saa bakkan bi barke maam Seera Fall rawatina bi ñu ko joxee Baye Fall ko ci seen loxo kon man ndigal loolu rek man moom laay wéer tey sama jëmm ji bu ko laajoon Baye Fall yi gin naa ci suñu borom dama leen di wax dëkk leen ci man tër ma waaw dëkk leen ci man tër ma ndax man adduna bépp xam nañ ma Italie France ba bitim réew foo taxaw boo joxee ñaari jóge boo nee sefal naan ñu xam nañ ma te Touba man loolu lu ma fi sëñ bi séddale kon lii dama cee def mbégte ndax buñ fi tojoon jéeg sama étage étage yi mën nañ ni sëñ bi dafa dafa dafa dafa ségrégation wala dafa am lu mu dox te moo ñoom dañu leen a digal leen digal loola duñ ko romb duñ ko wees amuñu ci nag ma sàmba amuñu ci ma demba dama ne leen woon bu bokkut ci ndigal li sax dëkk leen ci xam ne lii man maa ko war a jiite walaayil asib barke maam Seera Fall ndax man taaliba borom ndigal la te taaliba borom ndigal ku ko doon ku ne da nga doon ci moom dara ndax ndigal ndigal la ca nekk ndigal loolu moo law ba agsi ci taalibeem yëpp te man noona laay doxee lii nag ku ko naqarlu baalu ma la ko li ma bëgg ñëpp am ci mbégte barke maam Seera Fall te lii ñu def ak yokku def ko loo xam ne mooy li gën ci nun tey ak ëllëg muy ndigal loo xam ne ndam la ci suñu Baay Faal gi yëpp barke maam Seera Faal maa ngi sant jëwriñ ji di sant suñu am di mi nga xam ne moom it jàmbaar la ci yoon wi trop di jëwriñ di sant jëwriñ yëpp li ko tàmbalee ci sab sëriñ ba ñëpp rek ñëpp maa ngi leen di sant ba ci ñëpp rek ba ci Baay yi nga xam ni dañoo jëfe ndigal ànd ak ñoom wallaahi asim ñoom ñëpp maa ngi leen di sant di ñaanal yàlla li ñu sàkk ci liggéey bi yàlla na leen ko Seera Fall defal ci kattanu borom bi tabaraka wa boo leen bëggee am mboolem video yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abone bu leen fàttee bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mboolem vidéo yi fi ko